jigéen ñi Rufisque Nord ñoo jóg quartier yëpp nag fii quartier yëpp ngi fi naar yaa ngi fi olof yaa ngi fi soose yaa ngi fi ñëpp ngi fi lébu yi ñëpp ngi fi donc ñoom ñoo que gis ne o ba léegi ñu ngi nekk ci politique bi ku fi falu fii ñoo fi ku fi falu ñoo la fal ñu ne ma nag comme local lañ jëm te am nañ yaakaar di ñu jur parce que population tey jii bu ñu amee jafé jafe ñu ñuy gis seen wét muy nakar muy banex ñu ngi ci wét population ba tax na nag ñom ñoo organiser li invité ñu pour ñëw investir ñu comme candidat à la mairie de Rufisque Nord. Rufisque Nord yeena a ko gisante seen bopp xam bi ngeen ñëw fi jafé jafé bi ngeen fi ñëk gis moy lan problème déplacement mobilité pour nga daw ci tali Rufisque Nord yi mom c'est un problème demal dar Rahman nga xol sen tali ñëwal fi di dem HLM face, HLM Tali nga xol wala wala nga dem wala nga dem nga tali mel. depuis trois ans loolu la dund kenn nous ci apporter solution nous doon nañ ci doon nañ mais comme que yoruñu les institutions amuñu amuñu. ndomba tànk bu ñuy permettre pour ñu mën ci dara kon donc moo tax ñu ñu mujj arrêté bokk population yi mais ku gis lii xam ne loolu jafe-jafe réel la boo xam ne population Rufisque ñu koy dund ak yeneen jafe-jafe mooy assainissement jigéen ñi amatul fu ñu tur ndox te kenn jéemu ci dara ñun am na lu luñ ci jéem parce que am na association bu fi jógoon Fass Noflaye ñëw seet suñu ñu aider leen ñu am cinq 500 mètres de réseau boo xam ni c'est pour évacuer les eaux usagées les eaux usagées du moins kon donc ñun dañuy xool suñu environnement les problème buñ ko sérieux ci gën a simple ñu jéem ci indi solution yi xam ne day laaj falu wala laaj yeneen ñu xaar ba boobu en tout cas ñoom loolu la ñu gis porte seen choix ci man pour samp samp ma man aussi ma nangul leen